alors donc Moustapha bii la ñuy waaj a jël direct donc ñu yaatal ak moom incha allah euh, di jégalu ci retard bi. yow Caaku Ibrahima maa ngi lay siyaar Kati Ndaw borom Thiès Mamor maa ngi siyaar waaw tey masque moo xew tey moo mën a ma sol masque rek mooy loolu histoire laay bañ. have a nice. fàttali Moussa Dadi bi parce que tamit heure bi jot na j'espère que ndogu na ba pare. Uh, yes yes yow. may kën si asami baatim di tàmbalee fekk ci saa rab ndax toll ci atam yi xut bu jamonoy ëwalu ruus bàyyi ko London laaw mu jàppee awlu mooy sangu borom jamonoy saa yi ruu laak mu jàpp siloom sànni nekk nañ soldat njëkk moxtaari fëyi ko si oxlu bay tees ci adam lépp si xaalu mu katam bàyyi lañu daj tes engagé wu nekk soldaaram ndax dañu ko jàpp lépp ni mes tasaare tarixa cheikh islam day xeet yi yàlla ñu xaal ci ay di la saxee Cheikh Mamoud bi ñu bàyyee Cheikh ñaanal ñu ci barke Maulana. alors Cheikh bi ñaanal ñu ci barke Maulana ñu commencé ah. ci émission bi ci alhamdulilah. daal ko eggali si jàmm ak salaam alors plaisir di jégalu bu baax ci quelques rëkk-rëkk yi euh, di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp ne leen ñuy dalal moo ko waral ndaxte ndaanaan la ci pop Galsen le king di pop Galsen king daddy bi loolu ka ñaar ci barke Cheikh Mamou Insa Baye yoon bi. te dina gën a leeral yoon bi asalaamaaleykum Mr Daddy bi King Daddy bi maa ngi lay bëggee di la Cheikh. waaw nakamu maaleykum salaam wa rahmatullah nakamu nag. maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen ziara. Ah, li ko sama gars waxee rek di tocc mi nit ñëpp. waaw di leen mm-hmm. nuyoo di leen bëggee di leen safoo di leen tocc mi ko di leen di leen raayoo di leen Wow. Wow, et puis euh, di euh, aussi retard parce que comme que euh, fi ndok mo ngi a ay 8h13 8h11 elle la ñu ndogu hum. donc euh, après après après bima ndogo wara def wara julli après bima julle wara euh tout touti mom mo wara lolu quoi mais ma ngi djegelu donc dok bi nak c'est pas de ma volonté quoi maa ngi leen di nuyu di leen wax Ramadan Mubarak di leen wax yàlla na yàlla jàppale ñu euh, taxawuñu aar ñu sàmm ñu wërsëgal ñu suturaal ñu dimbali ñu jàppale Sénégal ak sénégalais yépp mbas mi nekk si àdduna bi yàlla jëlee ko fi. bi jaayil seydil alamina xaqaram yi yàlla na yàlla dimbali jaam yi dimbali jullit yi dimbali àdduna bi dimbali Afrique dimbali Sénégal yàlla yàlla taxawuñu ko baax a baax yàlla taxawu suñu njiit yi ñu gën a am xel mu sell pour euh, gën a mun a jàppale Sénégal ak sénégalais yi yàlla gën a yàlla defaruñu yàlla dàq fen ak sàcc biir Sénégal yàlla dàq ay euh, lépp luy euh, wàllu corruption au Sénégal yàlla dàq lépp luy njuj njaaj Sénégal ci barke weeru koor bi yàlla na yàlla dimbali sénégalais ba ñu juboo ñoom ñëpp nekk benn xam naa du mun a am sax mais yàlla na yàlla jàppale ñu ba ñu si gën a góorgóorlu waaw ah, bi gars yi Seydi Alamine akram yi jërëjëf kontaan naa trop DJ Jaco yow sama xarit nga sama frère nga sama everything nga jaajëfatee moo tax boo mu wooyee rek dama koy def quoi dama koy def I gotta work tomorrow like early in the morning dama war a dem liggéey suba tel mais I don't mind quoi parce que man weekend bi laay job quoi weekend donc donc mani xaaral je vais le faire pour mon frère Jaco spéciale dédicace à tout à toi quoi franchement merci beaucoup grand alors ça fait plaisir euh, di kontaan bu baax a baax alors grand mais noon loo nooy koor gi waa koor bi euh, en fait amin amin like mana euh, man même bu dul weeru koor en fait man xiif sonaluma trop quoi xiif sonaluma waaw mar xëy na xëy na mar di ma sonal tuuti mais xiif moom sonalu ma wax dëgg fa yàlla ñiy dund ak man xam nañ loolu quoi damay togg lu bëree bëri Sénégal man rek dama doon dund man ak sama benn frère sama benn cousin bu tudd amadu Fall bodia dañ doon dund maanaam moom euh, nit ñi ñoo doon ñëw ñun ñuy togg man mii dama leen di doon toggal sax bu leen toggalee gars yi ñëw invité nit ñi ñi ñëw lekk dem seen yoon parce que yonent bi sallallahu alayhi nee na joxe lekk day day day fànq bàkkaar day raxas bàkkaar donc euh, donc lek diko joxe dafa bax Seydina Seydina sunu maam ibrahim le père des croyants mi nga xam ñëpp dañuy oh. réclamer bok ci diine mom moo mom moo si mom la yalla essayé koor koor si diine ibrahim la bok donc mom limu mu doon def moy bala mu doon lekk dafay toog xool si këchu am yàlla da ko mayoon këchu mu meuna xol un mu meuna xol parce que këchu moy nga xam do amati kiray sa beuti day gis ba États-Unis day gis fu nekk mom day xool balaa muy da fa doon xol un kilomètre avant ak un kilomètre si quatre points no yëpp balaa ndax amul kenn kuy ñëw balaa muy wax bisimilah pour lekk. rek te oh. léegi da ngay gis nit ñi dañuy nit ñi dañuy am benn benn dagitu yàpp bu ndaw nëbbatu seen néeg yi di ko lekk. di nëbbatu di lekk di waxtu jenn saa ñu jënd dibi sax tëju tëju ak seen doom yi. si biir oh. néeg jox noppi lekk noppi comprendre nga. te oh. loolu du si dara gis nga fii àdduna la wërsëg yàlla moo ko bind te wërsëg daf ñu jiitu balaa ngay judd sa wërsëg jiitu na la donc lépp li nga war a lekk di nga ko lekk. lépp li uh-huh. nga war a am di nga ko am lépp li nga bëgg war a bëgg di ko bëgg waaye nag yàlla rek a jar a bëgg waaw dëgg la maa ngi koy dundee nice maa ngi ndogu lekk comme ñëpp maa ngi woor kom ñëpp man jullit laa te si diina diina lislaam laa bokk donc damay damay damay damay damay julli comme ñëpp damay woor comme ñëpp damay saraxe comme ñëpp waaw li ma war a joxe asaka dinaa ko joxe ci at bi li ma war a def yëpp ponk dal mang ci mang si gor gor si góorgóorlu waxuma ni mëtale naa lépp nag parce que ken mëtul mais ci gor si lu dal wa alors donc ça fait plaisir euh, tay war nañ waxtane d'abord abord actualité dinañ waxtane tout aussi euh, ci li nga xamantene moy musique buñ la xamé moy hip hop. Euh, waxtane aussi mm. ci ay projet nga xamantene mom la dadi bi son di def ci lan la nek et tout mais balaa dara di dara dañuy dadi bi son ak hip hop alors dadi bi euh, am nga buñ ben parcours bo xamné buñ koy wax ci euh, ko xamné def na hip hop donc maanaam dañu nan euh, gatché ngalama parce que ba tay ji may wax ak yow dadi bi mo opalé lu mu gëné album ci hip hop euh dadi bi ak hip hop waaw waaw en fait man ah, bi may am 14 ans laa commencé rap refuse que woon sama kër maam hmm. waaw moom gen na génn na àdduna sama mam, mom këram la demoon Euh, fekk ma jugoon Fass ñu yóbbu ma Rufisque pour euh, ma xaw a nekkaat si raay yi daal bi ma nekkee foofu après j'ai connu benn waay boo xam dañu bokkoon classe man ak moom euh, Ibrahima Ndoye Turbo c'est un c'était un un journaliste mais léegi si un mm-hmm. homme d'affaires et tout ça Ibrahima Ndoye moom moo ma initié si rap en fait man dama leen doon téyel seen ay cassette seen ay instrumentaux après ma jekki si àgg ma ne lii war naa ko mën quoi affaire de léegi mu amoon ay cassette chromé ay cassette chromé yàgg yi nga xam dañu doon def dafa doon am dafa doon am cassette bi si biir mais day am texte yi si biir tamit. léegi dañ doon jël te gars yi américains yi li ñu doon def. ak français yi sax ñom Sydney ay ñom ay euh, ay gaay yu bari dañ ko doon def ay MC Solar gars yëpp dañ ko doon def dañuy si fin bi dañuy def ben instrumental quoi si bir légui ñun dañ doon jël instrumentaux yoy nonu buñ ko collectionné jëlaat la si cœur ko buñ ko këro buñ démé ci ouverture ay commencé rap on avait on était jeune on avait 14 ans donc par la suite Euh, par la suite après ma ma dem ma dem euh, ma delluwaat Dakar pour Sainte-Marie de Hann commencé fa jang fofu la défé sama troisième parce que j'ai fait la la troisième à 14 ans et demi, quoi, avant même 15 ans, fekk que ma am sama BFM. comprendre parce que yàlla mayoon na ma ma ay bagage daal xam rek sama macha allah sama xel naqariwul woon daal comprendre dama doon avancer vite musuma musuma échec si benn examen bu may def musuma sama classe tamit je faisais partie des meilleurs tableau d'honneur dama ko am ba comprendre gars yi ma jàngalool xamnañ li ma lay wax quoi amna sama xarit daa may nekk booy neex ndong lañ ma doon woy ku di ma toj wa légui en fait en fait man li ma la mën expliquer daal mooy que ni j'ai connu le hip hop euh, par Turbo et après le hip hop m'a franchement marqué parce que moom l'a doon bànneexoo parce que je vivais pas avec ma mère je vivais pas avec mon père donc hip hop rek moom doon complété ba jour ma rencontré Chaka Babs mu boole mu présenté mu xumaan après xumaan ma xam Coxis après Coxis Pifras après Pifras ñu un album def ay Belgique ay festival te loolu dama koy regretter parce que les les jeunes dañu ont commencé. commencer di c'est un manager di ñafe di len book ci festival yi ngandi parce que ñun on le faisait dañ doon jouer ci ay festival ay festival yoo xam ay tubaab ñokay def pas rek ay festival yu fra yu sénégalais yi di def ay concert lay doon mais ay festival yo xam ay tubaab kay def yo xam ne du dégg làkk bi flow bi ak musique bi ak peut-être discours bi moo leen yóbbu moo leen ki quoi donc on a fait pas mal de choses ak Pi France après par la suite Madame Rapadio après avant Madame dem Rapadio amoon naa xarit bu tuddee Biba Biba Henrif Euh, j'ai fait un parcours avec lui à seen kër fële Colobane dëkk fa ñuy def ay son waroon génne benn album euh, après album bi mujjul en tout par la suite oh. après si la xamee euh, en fait Iba sama ami de de longue date la Iba sama xarit la après si la ma Iba si la jaare benn jour fële rue 33 daye ñoom Iba freestyle fa affaire yooyu fanaan fa jour boobu noonu yeewu Après, il m'a, il m'a proposé le projet de la par, euh, par, par un, euh, par un ami de Chamberlain. Après, on a parlé du projet Mr. Kane, Katie. Après, on a, on a ficelé le projet Rap Audio. Après, on l'a fait. Bon, ça, lol, après, on avait beaucoup de gens autour de nous. Aïwa, Sen Kumpay, Ndaysan, Sama Rak, Sama Kharit, Sama Rak, Mo. Ndaysan, dem rek maa ngi waxtaan ci moom si suñu panel bu Goto Goto. On a un groupe bu Goto Goto. Euh, donc euh, si lañ doon waxtaanee démb on de gars yi di rest in peace gars yi génn àdduna maa ngi profito di di di jaale building building Jules Jules sama xarit et mon école mm-hmm. ingénieur PBS Ndesan il a rendu l'âme c'était mon ami c'était un ami c'était Ndesan c'est oui eh, c'est un des pionniers de ce mouvement là te boy bari xamuñu ko Ndesan il a il a beaucoup apporté euh, au hip hop sen man tay ñaanal yalla xaré ko àjjana bu baax baax dem mm-hmm. dañ mako wax sama sama wor bi dem dafa sama franchement moy lolu quoi dem sama touché donc rest in gars yëpp génnaat na dem on avait parlé de ça sur suñu panel bi tudd goto goto donc euh, donc le hip hop c'est ma vie le hip hop c'est tout pour moi hip hop mooy le man bayna naa ay album du ma album bu tudd Daddy Bibson album bo xam dañ ci bind Daddy Bibson présente lolou du amati sama aduna comprendre mun naa nag génne ay single de temps en temps ma def ay single génne ko si benen tour parce que Tijani la tudd moy sama new name ya ko ñëk am en exclusivité Tijani Tijani waaw that's my new name comprendre mom lepp lu may génneeti si lol lol lay tudd quoi Tijani

xam nga fi laay nekk di def ay bagages et tout ça mon micro tout ça donc lu am guddi gi damay rek taal sama bagage commencé job si kawam affaire yooyu liggéey si affaire donc le hip hop c'est ma vie le hip hop représente tout lépp boo gisee Bibson rek xam hip hop boo déggee hip hop rek di nga fàttaliku Bibson loolu la quoi. dafa alors euh, bu ñu ñëwee ci Bibson ak euh, diine parce que il paraît que Bibson chrétien la ay da doon fréquenter internat si sœur yi comment ça s'est non non en fait mon sama sama papa ay en fait nous sommes, famille c'est une famille mixte du côté de mon papa donc de ce fait que euh, ses parents c'est des c'est chrétiens donc bi ma demee Rufisque sama la laa nekkoon Élie Joseph Collie. donc quand m'a j'avais j'étais jeune j'avais 10 ans 11 ans 12 ans temps après j'ai fréquenté l'église Sainte-Agnès de Rufusque. j'ai eu beaucoup d'amis yu nekk ba et euh, voilà quoi j'ai fréquenté l'église mais bon man personnellement dama judd ñu ngénte ma tuddee ma Cheikh Bou Kounta Koli donc hmm. man euh, mooy loolu quoi. Ah, et puis damay dévoiler benn secret yow laa koy joxaat. man Cheikh Bou Kounta lañ ma tuddee. Cheikh Cheikh Bou Kounta lañ ma tuddee mais Cheikh Bou biñ ma tuddee du Cheikh Bou Kounta bu mag mag bi du Cheikh Bou Kounta bi nga xam mooy maamu gën maan xumaan. Cheikh Bou Kounta biñ ma tuddee mooy bu mooy Bou Kounta Cissé ancien entraîneur équipe nationale. moom lañ ma tuddee parce que sama papa basketteur la woon moom ak Bou Kounta ñoo bokkoon. ak euh, ay ñeneen ak ñeneen ñoo ngi si milieu sport bi ñoom ñoo bokkoon ay Adidas ñoom ñëpp ñoo bokkoon di defandoo sport. donc man Boukounta lañ ma tuddee Cheikh Boukounta mooy sama tour mais bon voilà quoi loolu mais man je je me suis jamais converti en l'islam parce que dama judd nekk jullit ñu ngénte ma quoi. d'accord léegi Bruno bi Bruno bi. non Bruno euh, sama rakku papa la dafa nekk sama biir ok jeex na loolu waaw. d'accord. alors euh, bu ñu ñëwee aussi ci euh, gannaaw bu ñu génnee ci loolu ñu ñëw carrément ci li nga xamante ne mooy euh, hip hop bi ba léegi gisoon nañ ne gis nañ aussi ba léegi dadi bi lépp loo xam ne ci album la ñu génnee ko au niveau du Sénégal dadi bi moo ci uppale jusqu'à présent moo ci uppale album car macha allah mais ñu gis ne am na benn album boo génne woon booba ba léegi. mu am ci benn ba léegi boobu ba léegi daf dama ko génnee dama nekkoon si ay tolof tolof yu metti dama jóge benn bi. Ya, wah, dama bëggee juga benn. Wah, wah, wah, vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y waaw waaw donc ci nga dem benn concert. concert eh, bi fees del après ngay ñib si war a génnee projet déjà nga am lu la ci dab est-ce que mun nga ñëwaat ci loolu feebar boobu. yeah en fait ama ah, xam ay jamono moo tax bërki démb en fait euh, y a quelques jours j'ai parlé à Dip Dip Dundu ma respect quoi si li ngeen di def. parce qu'ils oh. ils remplissent des stades et tout ça mais jamono jooju tamit man mun wax euh, que euh, instant nous, on pouvait pas parler de Bibson euh, de hip hop te wax je faisais presque je faisais presque j'étais en fait j'étais au-delà de la scène man période boobu nous lépp lu ñuy def Bibson lañu ñëk tek bala ngay choisir yenen parce que je remplissais beaucoup de salles tamit donc oh, je l'ai fait pendant plus de 14 ans ou 15 ans au moins def naa ko conseil yi maa koy tëj wala bu may wa tëjul bu ma yéegee ba pare kenn du fa tegasi donc période boobu cat ak Lamine xëy na moo ma toppoon affaire deme noonu man je affaire deme noonu donc après par la suite ma ñibbi si si si ngoon gi man ak Crazy ñoo bokkoon euh, benn euh, ñoo bokkoon benn benn chambre aux HLM may euh, ma yeewu di dóor crise di ko mais gars man mënatuma mënatuma mënatuma noyyi mënatuma noyyi moom pour moom damay mhm. caaxaan parce que man ñëpp ñëpp ma xamee ay ay kaf ay kaf fooree mbalak ci affaire yooyu ñëpp xamee nañ ma lool quoi képp ku ma fréquenté xam na ni Bibson moom ca de kii bi ni ñu ko waxatee il est entier donc par mhm. la suite après euh, ma yee Crazy moom nag après bi ma yuuxoo na mu xam ni lii c'est sérieux après si la dem wooyi sama parents yi nekk fële HLM parce que HLM la de compte j'avais une tante foofu et mhm. sa famille j'avais un oncle après ñu woo ma ñu yóbbu ma Thiès ma nekk sama mbokk yi euh, parce que ça voilà quoi affaire demee noonu

waaw parce que lépp lu wax dëgg la Bob Marley def ni you can fool some people sometime but you cannot fool all the people all the time Omar Pène oh. nii ah boo leen àndee ñaar fukki at di nga xam ni kii sama waay la Cheikh Mamour maa ngi ko commencé fréquenter en quatre vingt dix huit donc quatre vingt dix huit ba léegi bopp na ñaar fukki at quoi donc kooku sama waay la waaw donc loolu la quoi donc moom bi ma seetsee ñaanal ma dama wét ba pare pavillon bi ma nekken lay nekk koofu mooy bi ñu jaaxle ba jaaxle xamoo yow xamuñu lan mo la dal fofu lan lay sani tay ñu bari ñu fa nekkon dañoo juk wir oh et puis et puis bu fatali ko fatali gars aussi que paralysé won nga presque à peine 6 mois. ba dem ba bëgg baye ay 6 mois wa wa wa paralysie générale won 6 mois mënu mo def dar lepp dañ mako don defal. ndeysaan ba mu taxon nga bëgg baye rap après ci nga dem France euh ay talibé ba yu bari say fans yu bari aussi na la non il faut nga delu en fait man j'ai j'ai vécu une histoire en France. ba léegi m'a am visa France hein, tu sais mon visa de bu mais visa Gambie ça, mon nom mais visa France m'a ko am. mais bon voilà les gars, sama statut sama statut bi ma statué, je moom du graaw je de ma dem France quoi. donc en France Madame dem France euh, les ma pour France tamit par accident là, parce que j'étais parti en Belgique après mon rôle, ma oh. euh, pour un projet après euh, projet bi mon xool xool xam voilà quoi. Euh, war warna mën a gën a toog fii nii gën a ressourcé wu parce que période boobu noonu bon voilà quoi après euh, si la ay parentaire waranteer yooyu yëpp génne <laughs> gars yi sànni ma ma def un an après ma def un an après voilà quoi ma def France un an j'ai eu un fils foofu j'avais une femme euh, voilà quoi après ma ñibbisiwaat benn période mon fils il a quinze ans maintenant sant yàlla donc alors euh, pour parler toujours de hip hop parce que c'est euh, son yu euh dafa am ben partie bo xam ne da nga ko bayil xalé ak euh, li nga xamantene moy jigen manam tay buñ xolé ñu musicalement parlant dafa bëgg musique dafa bëgg xalé dafa bëgg jigen manam la femme en quelque sorte euh, gis nañ Black Woman donc mu nek message bo xamne ne da nga ko jagleel jigen ñi amna son bo defoon jigen aussi yow ak Gaston yow sa relation manam ni nga bëggé ni nga bëggé xalé ak ni nga bëggé jigen soxna en quelque sorte waaw j'ai j'ai j'ai un ami sama am naa sama attends une une une benn seconde rek ma dugal chargeur bi sama ordinateur di waxaale ak yow di charger, waale parce que sama sama batterie dafa nekkoon loolu one second one second just give me one second please one second waaw bon ma waxaale euh, en fait euh, mon frère mm-hmm. euh, dafa am ñaar yo xamni ni mm-hmm. dafa bokk dafa am ñaar yo xamni dafa bokk si ñun dëgg la jigéen yàlla moo ko njëkk sargal wallaay deugal la deugal dëgg la Bib Sot franchement ya yaa yang may dégg j'espère bu baax ba wala xama jigen dafa am ben place bu import importante ci si si si dine am place bu importante si société wa oh. l'islam mo ñëk l'islam mo ñëk sargal jigen bu tuddee ko sora sora donc islam li kaamil bi lepp lu ci nek lu yalla lu yalla naw la wala lu yalla di bañ comprendre nga ah. euh, mais islam dañ dafa may jigen place bo xamni dafa graw dafa graw dafa graw trop trop trop islam dafa may place jigen bo xolé ñu bëri sen sant yaay lañ leen jox ci góor yalla yi ay Isa ibn maryam ay ibnu Imran ay yoy lañ leen wax comprendre nga donc euh, euh, dama la bëgg expliquer ba ni la jigen bay Niass lim ci wax rek neena bo xolé ñett si ñoom rek neena war nga leen di muñal war war nga leen di jappalé mu bu mhm. féké da ngay bo xolé tangoru wañ bi Jigen nu mu tang tang bo démé ba Fuuta dëkk yi gëna tang Sénégal jigen moy nekk si wañ bi di togg té ay mat lay ak mhm. affaire yoy xam nga lool rek war na leen ci yëram benen bi moy nu mu metti métti ñoom ñooy ëmb ëmb sa doom benn instant duñ mëna sax depp wala yeen tourner dañuy jup da nga leen di yëram parce que bo amé jabar mu ëmb ngeen nekk ensemble li nga xam li metti na donc lo boko xalaté rek war nga war nga mëna war nga leen mëna a yërëm beneen bi ci nek top moy néegu sey jigen mom mm-hmm. du takki jabar de jigen du takki de mom la takki comprendre nga yow bo démé ba jël décision yow da ngay tak rek moy kan jigen amna place bu cher quoi marchandise bu cher la jigen comprendre nga mm-hmm. buma ko mënee wax loolu laa koy waxee boo xam mënu ko jënd ken amul njëgam mm-hmm. comprendre te jigen mom moy tax nga parfait jigen mom moy lay mëttali mom mo lay mëttali comprendre nga bañ nañ ko fi comme ay dëkk yu melni euh, Europe ay Amérique wala yene dëkk yi da ngay xol jigen yi dañuy xey ngay xem xey yi maa ngi ko ben góor yalla bu doon wax ji euh, demoon Suède doon fa def ben conférence mu len yéen waru len di joy dara mu len ñun yalla mo ñu exiger ci sharia ni jigen boko amé dang ko wara a dëkkal da ko wara wordu dang ko wara a dëkkoo mu ni da ko wara dang ko wara wa waaw mun da ko wara a dëkkal da nga ko war a dëkkoo da nga ko war a wodd da nga ko war a dimbali waaw comprendre nga mais góor góor kenn war ko wax góor góorlul parce que góor góor la ba pare góor góorlul mooy nga jéem a nekk góor loolu kay xas la hmm. loolu bu la ko waxee rek xas nañ la jigéen kañ la ñuy wax góor lu maanaam jéemal muñ góor góorlul hmm. yaa ngi dégg li ma lay wax billaay wa dafa dafa jigéen dafa sonn jigéen dafa sonn donc léegi nag on a on a la société donc ñoom ñoo ngi émancipé wu di gën a jàppale te boo xoolee boo xool jigéen bu la dàq dem wuti ji bu ñëwee tey da koy def si yow. waaw man li ma la wax nii dama si am lu ma leer day am am naa soxna day dem wuti te lu ma ko laaj mu jox ma ko. ndeysaan ndeysaan loolu loolu loolu rafet na euh, King Daddy bi. loolu lu nga wax aussi nice témoignage bi ngay def si jigéen aussi am na solo bu baax la. donc ma ñew ci xalé man dama bëgg xalé parce que ñun ñëpp jaar ci xalé ma ma vivre enfance bu difficile ay ay ay enfance bu metti quoi enfance boo xam ni euh, dëkkuma ak sama yaay dëkkuma ak sama sama papa ya may dégg ma dëkk ak sama sama ben sama ben rak magu yaay bu baax ndaysan moma ma yar comprendre nga dëkk na moom ay 20 quelques années ndaysan wa donc euh, moma ma yar ye moma ma yar fépp fuma ma dem moom ma la laa dëkkal ba ba ma commencé mu demal sama bop comprendre nga dama la bëgg expliquer ni la xalé dafa am importance parce que xalé yi ñaan wuñ leen fi te xale yi ñom ñom forcé wu ñëw tay xalé bo ci lajoon tay ban kër nga bëgg dëkk dina xalé bu conscient dina la kër gi gëna neex la lay fofu lay dëkk kër kër gi gëna neex xaar wax la ben anecdote bu ndaw dama and ak sama ben dom, sama dom jaara man jaara la tuddu maa ko sama rak jaara dañu and dem séti ji euh, Idrissa Seck bi ñu demee seeti Idrissa Seck <laughs> ah, après ñuy ñibbi sa Seck may ko deux cent mille. yaa may dégg. ñu ñu génn kër Idrissa Seck après ñu jàdd si benn pâtisserie foofu. ma jëndal ko shawarma. Mhm. fekk moom dafa doon toog di wax ne moom Karim Wade mooy mooy président xam nga Karim nu mu rafetee noonu xees ak ay affaire yooyu. <laughs> <laughs> ñu jàdd ma jëndal ko shawarma ñu dugg sama oto di dem rek. mu xam xampaat rek ni ma papa tay nak la baye Karim wad deug deug deug man il est sama président deug ko dëgg rek dama re juro dama ko rew re re ba sonn quoi comprendre dama la bu espérer xale xale bokay beugal ni muy mel ci yow comprendre donc ñun indi indiwuñu leen fi ñun ñoo leen wara jappalé man limay ñaan yalla man lim ñaan yoy sénégalais di ñaan par exemple di wax ni suñu mbokk sénégalais yi ñuy ñaan yalla nga dem ba yobbu sa papa maka, non man dama bëgg and ak samay dom maka dama bëgg ñoom comme bay Niass nim ko doon defé di yobbu ay nit màkk ay ñoom señ Mamoun di def ay Cheikh Mamoun di def di and ak ay talibé màkk def res res len ci lepp man loolu la mm. bëgg di def man dama bëgg and ak samay dom maka di len paasal di len fayal limay ñafa yépp ñew amerique fi ni ñew dia di yew di dem ñafa ji pour ñoom la bu doon lool mon Sénégal mo fa togon na dundal sama bop comprendre wa muna naa parce que rabbi na ma loolu au senegal may na ma loolu au senegal man damay dox sax ñu may may ay gerte tiaf sax damay dox maire di ma ko may maire wo ma am jëlal gerte gi damay tok sama ay xarit ay ñom bass gaay di ñew ay yére yu rafet di ma ko jox te duma ci fay deureum di soxla yére ma woowee allo cheikh bi ni ni cheikh Mamour mayma ay yére yu bari limam ma am ci ay yére yoo xam ne moom sol may ma xamul ni mu toll. Oh, comprendre dama lay expliquer wa dama lay expliquer rek man lepp ma togon senegal lepp mun naa ko am fofu mais man sama oh. doom yi laa bëgg a tabaxal ay kër tabaxal leen ay immeuble ni sama maam bi nekk Rufisque Élie Joseph Coly li mu def bàyyil doomam yi ay tool ay hectares yi hectares bàyyil leen ay kër man loolu laa bëgg a def mooy sama référence si wàllu wàllu wàllu société économie nii man sama maam référence la ci man bien ko bokkuñu diine maanaam moom comprendre nga moom dafa bàyyi dafa liggéey laay fam yëpp bàyyi ko fi man loolu laa bëgg a def bi muy dee héritage am dafa ni je lègue tout à ma famille ma ne ma bëgg def loolu man bugum bokuma ci papa yoy ñi wax yalla na la sa doom yobu makka neena ma kañ yalla nga dem bay ànd ak say doom makka man ma leen fayal ñu and makka yalla mën na ko lay ñaan amin amin alors dadi bi euh, dañuy dugaat tuti encore une fois ci hip hop bi aussi euh, mo xol say relation ak say gaay yo xamne ne euh, ngeen euh après c'est vrai que même bu ça s'il y avait le clash dans le hip hop mais après légui naka ngeen mel sen digënté euh suma la né yow ak Awadi awadi musu awadi ay awadi c'est il a été xanaa xam ne am na son bu ma ko clashé moom awadi moom moo defar moo defar original beat bi moo ko defar mooy son boobu ma ay hip hop si sama album abul Faydu avant indi chef di ko remixé awadi moo composé musique bi looy wax ni <laughs> eh, awadi sama Awadi ah sama grand frère la man dama koy wax fu nekk euh, du ma ko du ma ko rusa wax quoi Awadi il nous a beaucoup aidé man ak wax dëgg fa yàlla man nag sama relation ak moom laay wax quoi waxuma nag moom ak relation ak ñeneen lépp lu muy def tamit si côté xaalisam ay si côté leneen man I don't mind I don't du sama that's not my life man sama life instant yi dama toll benn degré boo xam ni man nit ñi li ñuy def barke Alaaji Ibrahima ñas billahi lu len neex nañ def parce que da ngay wax ba son tamit mëno len changer parce que nit magum jëm bu conscient bu ko def dara mëno ko wax dara ba mu change ko té mag bu intelligent conscient limu def lu nekk xamna lu ko ci duggal quoi wax deug fa yalla comprendre alors sa digante donc non deug yi mom deug na sen kër sax ay 3 mois raqam sama raqam bok na sama meilleur ami bëgg si benn loolu ñëpp xam nañ ko ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dëgg la alors Chaka Babs mo da biko biko bi ko di laaje ay dadi bibsona sona mu ne no bi xamantene bi dañu dëkk dañu xamantene affaire moom xam na dëgg xam sama sama grand la quoi dëgg mageewuma lu bëri sax mais sama grand frère la. Chaka Babs. Chaka Babs amuñu benn may Chaka daf ñu teral man ak xumaan nii Chaka Chaka daf ñu dëkk nañ ko ñoom Chaka Babs man ak xumaan ay 2 ans. temps u baraaki laa oh Félix Dia. alors euh, kan moo ci des dama koy ñaanal yàlla jàppale ko gën ko ah. Jibes sa relation ak oh Jibes kooku. that's that's my nigga sama soo <laughs> ngeen jibees jibees musuñu am xarma yàlla moom live fi moom i no jibees sama album mise à jour moo ko moo ko mixé lépp moo ko mixé zéro franc laa ko jox zéro zéro franc ndeysaan cool coxis bu pi fras cool léegi rek lañ sànq rek lañ jugee wax ni cool euh, ñoo bokk dañu bokk benn benn association bu tudd gooto gooto man moom ay Kenkeliba ay euh, ay Donzap ay euh, nu ñu koy waxatee euh, ay Thieuff Mola Morgan euh, nu ñu koy waxatee Johnny Johnny Waaxu bu Mergi Clan ah, ak ay yeneen copains ay ñoom Madi ay yenen ingénieur ay yenen ga ay Yatma ay gars yoo xam ne ingénieur lañ say image ay nu ñu koy ay ay gars yu am doole may may bañ a lim juum ay ay ay ay ay Abdou ay ñoo xam ne ay peintre lañ ay peintre yu ngand si àdduna bi comprendre di exposé ay Seydi Mendoza donc dañu def une association bu goto. nous on est 16. association le du du ay euh, copains association am sunu am sunu am sunu am am sunu am sunu sunu sunu euh, sunu ah, sunu budget am sunu budget am sunu préparer activités yu doy war, goto goto, ben ak Moussa Deyman projet Moussa Moussa production yee ñun ñoo ngi job si benn projet bu tudd gooto gooto et puis ñu ngi si liggéey bu baax ak tous les moyens qu'il faut parce que tamit il est temps que ñun bugguñu dem di wuti nguur nguur gi di wuti ndimbal si ñoom dañ bëgg a def comme américain yi ni def ak français yi di def ay affaire di ko jox di ko jox nguur gi association sénégalaise yi nekk bi bitim réew doon laaj pour ñu dimbali ñun dañ si participer dugal suñu xaalis xaalis bi mu ñëwee xaalis boobu la suñu yeneen mbokk artistes yi na leen ko jox ndeysaan walloo tamsee alors euh, Wilson waaw des na des na dese naa ñaar sa digganteeg euh, Maxi Crazy. Crazy euh, moom moo ngi nekk euh, New York xamu Connecticut dañuy déggoo mais ça fait un petit bout de temps déggoon déggante wuñu bon je sais que mu ngi si ay activité mais musuñu am xaar ma yàlla depuis volontaire volontaire <laughs> Crazy bokk na li si li tax ma ñëw. Je na si USA parce que maison de disque invité ah, ah, bi nous pour vidéo Crazy parce que jamono au Sénégal donc nous ñoo ñu déglu suñu nous son suñu son après nous une production ñu commencé job production sori trop trop trop mais quoi c'est dommage d'accord FATA euh, Fata after first round yéen non loolu loolu jamono jooju la woon dafa dafa attaqué woon ma def contre attaque léegi tuddee loolu first round léegi après maa ngi doon xaar deuxième round bi mais mujjul am quoi. d'accord alors sa digganteeg euh, Degiba bu Rapadio. Degiba démb rek ñoo ngi ñoo ñoo ngi déggante mu may texte euh, si euh, WhatsApp di ma wax réseau parce que dama déglu sama benn son sama sama statut kii ma nekk di composer benn son si kii après mu may mu may réseau man que réseau après ma def ko waay mu ni ma mu ni ma. two thousand mu ni ma nineteen ninety eight maanaam euh, quatre vingt dix huit xam nga quatre vingt dix huit bi ñu commencé def rapajo bi bon euh, franchement à à quatre vingt pour cent bokkoon na ah balaa balaa ngay continuer Seydi Monde sa mu ngi lay nuyu ah men sama niga la muy <laughs> muy bind nuyu yee ñoo ngi ñoo ñoo ngi ko njàng ñoo ngi jokkoo bu baax a baax xam na ñun ñoo bokk suñu association bi gooto gooto gooto gooto waaw Seydi what's waaw eh, non Iba sama Iba moom Iba Iba Iba moom Iba xam moom léegi dafa xaw a dëddu musique bi quoi léegi mu ngi si diine bi bu baax a baax te franchement mm-hmm. yoon la bu ñu war a topp parce que loo xam ni so ngay nga for a tàmbalee comprendre donc man dama koy gërëm chaque fois parce que anytime lu nekk si xelam daf ma koy wax parce que dañu dund li mu wax chaque jour daf ma koy wax barkaati dem rek wax na nee na ma dañu dund da ngeen dañu dund man ak moom loo xam ni loolu nit mënatu ko fàtte comprendre donc sama sama frère la Iba dafa daj lu bëri si man man it ma daj ko Iba fu ma xeexee xeexoon naa fa moom man fu ma xeexee dem nañ ba France sax muy muy jéem a yëngal nii man ma ne damay xeex mooy mu may piste damay foo rek affaire yooyu. <laughs> ndeysaan alors Bibson euh, gisoon nañ ne temps yi temps yi temps yi ci ci ci ci ci hip hop bi carrément. Euh, donc mhm. gars yi chaque fois dañu daan foog ne Bibson mooy clash mais alors que Bibson dañ ko daan clash muy fayu mais ñu bëri dañu foogoon ne. yow yaa doon tàmbali euh, clashé c'est-à-dire que parce que sa clashé yow doon promo tu as tout nag tu as tout compris waaw <laughs> mais garaawul ah na léegi man de ku ma tooñ man léegi nit daf may da ngay keroog damay doox si mbed mi rek benn benn te bi may njëkk a Amérique fii dama fi noonu nekk di xeex rek parce que après comprendre ma woon mais bi ma comprendre ni fii you can have like mun nañ la tëj fii ay avis ndax xeex wóorul quoi benn américain boo xam ni bu ma bu ma ko offee sax mu naaw ma xajam ni daf may song ma dóor xaj bi. parce que xaj bi he was unleash xaj bi takkuñu ko woon quoi nekkul woon si leash maanaam nekk jàpp ñu ko woon quoi. léegi ma dóor xaj bi rek waa ji commencé xale bu ndaw di ma ay why you slap my dog why you slap xool ko xool ko yëngal sama bopp quoi taxaw après mu ngi taxaw di wax de kërën kërën après man ko waa ah, grave baal ma maa ngi dem. pour te dire léegi damay daw coow man coow daal moom léegi saaw na ñoom saaw na ñoom positive black soul bi rek. dal daw coow. waaw alors donc Wilson euh, aussi euh, gis nañ ne bi nga bi nga commencé dem États-Unis euh, defoon nga benn genre absence bu Grau, hein, ah, Fancy Diarle, jaaxle ah ñëpp di laajte mais daddy bi ci daddy anamu kenn gisatu ko kenn dëggatu ko ndekk daddy bi dafa feebaroon feebar bu métti. mu dem ba benn instant aussi donc Ken gëstootu ko kenn xamatul ci mais quand même amna na peut-être ñoo mu ngi leen gis mu ngi Simon par exemple de naa nga def ko ci dem est-ce que vous nga ñëwaat ci sa non diabète la woon rek diabète <laughs> non en dama commencé woon euh, di perte pois fii euh, parce que man ak sama benn xarit euh, Malick maa ngi koy de passage xam ma wax mooy déglu wala fa même dañu doon on était gérant de benn supermarché Dallas Store donc foofu am boo nekkee si supermarché bi da ngay lekk rek di lekk rek di lekk rek ma jàpp ma jàpp boisson yeeg tàngal yeeg yi di lekk loola mo feebaroon ma jabet bu garaaw yee ndeka man maa ngi jabet jabet bu garaaw après bon ma ñëw Sénégal nag commencé soox ak ay affaires yooyu après si la sama cousin bi am fal yóbbu ma si benn pharmacie fajar teel ñu def test test jabet maa amoon ay presque quatre grammes de sucre. après oh. dem hôpital commencé faju faju nekk si plage parce que temps yi maa ngi am chance nag dëkk en face de la plage à Djilimbay di daw chaque jour may daw chaque jour may daw di daw di daw di daw di daw ba affaire bi

Euh, donc sama tànk bi para sama tànk bi paralysé waat encore bu baax a baax ma koy hmm. jàpp bu baax a baax mais bon grawul quoi loolu passé na quoi franchement. Euh, ah day si sant yàlla parce que feebar day day day tax nga ngay xam ni yàlla fàttewula quoi. te boobu ba pare feebar feebar si jaamukatu yàlla day raxas bakkar tamit. waaw da ngay natt ah la yàlla di teg la bu tegee ko rek da ngay gis ay yeneen parce que yàlla dafa wax si alxuraan. fa na malo usri yusran mu ni ginnaaw jafe-jafe rek jàppandal. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew ni ba'da usri yusran wa xam nak man bu may faral di wax lu bari ci ay ay alxuraan moy sama tektel parce que dama judd sama mam nek serigne man sama ki jur sama yaay serigne la serigne daara. Mm, d'accord mom moy sama référence sama ben famille bu tudd famille Cheikh Yirim Ndumbaan Seck donc ñun si lool lañ yaro quoi. donc euh, voilà lool lo quoi donc euh, lool lo quoi mais yalla teggil na ko macha allah mangi ngi maa bon di suivre sama régime nak bu baax di sport. voilà quoi. Euh, ci ci sa ci sa moment feebar bobu dafa mel ni Simon aussi amna na lu mu la apporté. Simon clair wa en fait xam wa mom mom mom bokkoon na si ñima ma doon woo lu bëri di laaj grand alors si lo nek affaire ba soxla yi garab affaire de temps en temps xam après mu jënd ay ki yenn saa ma ko laaj sax man parce que j'aime pas demander. yek si ak mhm. sen ma benn kii sen ma ay ki ni ma grand xaar ma ngi lay yónnee affaire nga jënd ci ay garab mom il est très social Simon ku ko xam-xam ni ku social la. Mhm. Simon musul jaar sama musuma wowe bipson grand rek la may wooyee yenn saa yi mënuma king yenn saa grand. <laughs> musul jaar sama tur. alors sa relation ak sa ni dof killa killa killa sama killa <laughs> ma tooñ ma boole laa killa de killa moom. <laughs> non killa dragon ma jëli. killa dama koy waaj a classé xaw ma loo ci xam. eh non non non non man maa lay There is king. yeah, killer, that's No, that's my man for real. Yeah, killer, there, killer, that's my man. No, that's my man No, for real, Laleo, that's my respect this man. xëy na ñu bëri xamuñu ko ak état d'esprit xam nga nit moom boo entier si tu entier nit ñi dañ a jàppee ku soxor wala ku mer ku tàng xol ku aigri ku af mais he a clean heart. waaw bu ma doon def euh, këram bu ma ko doon dessiner en vert laa koy def ko à vert.

si si mun naa ne xam nga y' a de temps sax pour les regrets mais euh, après bi ma demee bi histoire di gën di dem après da ngay gën a xam looy gën di doon mag di xam ni lii waroo ko def quoi. Mm-hmm. ak Crazy aussi bi nga defee station bi. waaw en fait xama man xama nga mooy li ma la daj Crazy moo ma attaqué bi ma man it ma répliqué. Mm-hmm. après par la suite tamit après yàlla boolewaat ñu ñu àndaat donc. Euh, dina am benn regret bu ci am quoi mais doo ko regretter si même instant bi li ngay regretter kañ mooy lu tax nga defoon ko mais regret bi nii nii nii moom loolu la rek quoi mais du regretter yoo xam ni damay toog nii di naqarlu affaire yooyu mais bu ngay wax ni ah, si c'était affaire du ma ko def. dëgg la euh, troisième bi mooy euh, demoon na bu nga bëgg a bàyyi hip hop parce que tamit dafa nekkoon booy boo xam da la jege euh, fu ñu la gisan ci son moo lay jàppal say refrain et donc mu nekkoon booy boo xam ne vraiment bu mu génnee àdduna am na lu mu def ci yow muy Jibril. yeah Jibril moo ma découragé hip hop ah boo gisee ma xaw a give nii loolu moom bokk na si lu tax ma give parce que de fay y de da fay ngay dox ba siag rek ñu sa uh-huh. euh, ça fait mal et puis euh, Jibril mom waxtaan ci te euh, hommage le 3 septembre la aduna à contacter j'ai contacté pas mal de de MC pour ñu liggéey ci uh-huh. projet bi le 3 uh-huh. septembre dama bëgg yeen ñëpp ñëpp ñëpp ñu teg son boobu waxtaan ci moom après man je vais faire le tour de li ma mën a def si ay rajo wala interview je le faire wala ma def ko à l'avance ak gars yi comme yow ay DMF ay yeneen gars yi ay ñoom comment s'appelle ay Kalz ay gars yi ma xam yëpp quoi franchement après jëm ko diffuser si rajo yëpp quoi. d'accord c'est c'est euh c'est benn son la maa ngi ci liggéey son bi moo ngi tudd Gone But Never Forgotten. c'est ça oh. Alors, vous pas aussi ce que vous mon école le 1er décembre, euh, Bibson a fait un double album, un spirituel, et un c'est carrément musical. Mais, le que j'ai dit projet, c'est que, euh, au côté spirituel, il y avait 13, 13 morceaux. Pourquoi le